mbokk yi ki ngeen gis noonu moom mooy euh, njiitu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany moom mooy agsi noonu mooy door a ñëw fii nga xamante ni moom mooy ci Liberté cinq wetu IPG fii lay voté Bougane Gueye Dany moom mooy agsi noonu moom ngeen di seetaan en direct ñu bàyyi leen ngeen xool la arrivé bi arrivé bi nga xamante ni mi ngi ñëw pour def euh, votam voilà mi ngi dem euh, ci bureau de vote bi nga xamante ni fa lay voté ànd ak ses euh, militants ànd ak tamit euh, la presse bi ñëw en masse pour ñëw. cas yéen a ngi ko gis noonu mi ngi nekk ci table bi nga xamante ni fa lay tànnee xob yi fa lay li nga xamante ni moom mooy këyit yi mu daal di accomplir li nga xam moom mooy vote liste yi mi ngi noonu di jël liste moom ngeen yi seen noonu bu defee jël liste yi ba pare dem ci mbañ gàcce bi daal di def son choix ñëw dugal ko ci biir urne bi léegi pare na jël na enveloppe bi léegi ca mbañ gàcce ba la jëm bi comme ni ko ñeneen ñi defee mi ngi noonu waan ngay dani def na votam mi ngi sànni dugal na ko voilà léegi accomplir na li nga xamante ni moom mooy devoir am léegi nag day dem def euh, signature def encre bi. alo maa ngi sant di féliciter les Sénégalais dans leur écrasante majorité euh, tey c'est un jour historique historique dans la mesure où nous autres Sénégalais am nañu une chance. inédite pour écrire une nouvelle page de l'histoire démocratique au Sénégal li am solo mooy ku nekk jog na dem voté ji ni ko loi santaane ci réew mi euh, ñu bari ñu ngi wax nag ne amul affluence yëf yi nit ñi bari wuñu ci centre de vote yi il faut d'abord comprendre que force de sécurité yi nanguwuñu nga voté toog mais beneen bi ci des mooy euh, rapidité exécution wu vote bi vous avez vu doo def deux minutes ci biir euh, bureau de vote bi alors que bu doon élection euh, locale parfois nga xam ne dafay bari ay candidats vous êtes obligé de faire peut-être dix minutes Donc je crois que c'est d'abord ça qui l'explique. Mais l'autre fait non moins important, c'est que euh, je voudrais profiter de l'occasion euh, def une pensée euh, boo xam ne suma xol la jóge euh, une pensée affective au président Maître Abdoulaye Wade du haut de ses 96 ans il a tenu à venir voter pour ces élections loolu dafa am solo et dafa war a interpeller tous les Sénégalais et plus particulièrement la jeunesse sénégalaise vous avez une chance la chance inédite de challenger le président Macky Sall c'est vrai sur le plan politique am na ay jeunes leaders tey yoo xam ne du ñu ko may dara mais nag jot na au niveau des institutions de la République ñu am des institutions fortes yoo xam ne de jeunes sénégalais des sénégalais engagé déterminés bëgg nañu taxawal seen réew fonction wu député sénégalais yi dem nañu ba far fullaalatuñu ko jot na nag tey ñu génn dem voté ji massivement pour mun a challenger Macky pour mu xam ne déjà sénégalais yi dootuñu ko bàyyi mu nekk ci assemblée di def lu ko neex wala di doxale nu ko neex kon képp koo xam ne toog nga ci sa kër képp koo xam ne génnuloo dem vote ji bu ëllëgee nga la bul bokk ci ñuy wax parce que joxoon nañ la opportunité pour nga wane sa kàddune am na njariñ ci réew mi te defuloo ko kon exemple bi maître Abdoulaye Wade def jugee euh, France ñëw jël jet privé ñëw pour voter si moom ci quatre vingt ans am kon ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci suñu quarante suñu rakk yi nekk ci seen i dix-huit ak seeni i jóg leen ngeen génn ñu dem voté ji parce que képp ku toog ci sa kër voté ji wuloo encore une fois yaa ngi dooleel lii fi nekk yaa ngi dooleel corruption yaa ngi dooleel jaay doole yaa ngi dooleel ñàkk justice ci réew mi parce que on a l'impression dans ce pays qu'il n'existe qu'un seul pouvoir c'est le pouvoir exécutif amul pouvoir législatif amul pouvoir judiciaire dem na ba tey bu nit ñi waxee procureur bu waxee nit ñi dootuñu ko gëm alors la jeunesse vous avez une occasion rêvée pour changer les choses au Sénégal kon loolu moo doon kaddu bi nga xam ne amoon naa ko doon ko lancé à l'endroit de la jeunesse di wax nag ne nañu sécuriser vote yi wax naa ko waxaat ko waxati ko euh, il y a deux fichiers électoraux li may bañ rek mooy ñu bàyyi ba ñu génnaat ci mbir mi ñu ne Bougane waxoon na ko Macky Sall ak ñi mu àndal taxaw nañu pour njuuj njaaj pour labaj élection yi kon li ci des mooy yéen ñi génn voté ji bu ngeen voté sécuriser leen seen vote seen koñ ñi fay voté xam ngeen leen seen commune ñi fay voté xam ngeen leen ñi ñu dugal ci ay kaar jëlee leen ci yeneen dëkk koñ bu ñu ñëw yéen ñi fa nekk takk leen seen ndigg ngeen taxaw jëflante ko ak ñoom pour ñu bañ fa voter parce que transport boobu ñuy def transfert boobu ñuy def il faut qu'on y mette un terme et yëfu wëyu yooyu yëfu njublang yooyu ñoom loolu la ñu xam c'est c'est c'est c'est c'est désormais acté nit ñi danañ taxaw jàkkaarloog ñoom kon je crois que euh, li des mooy euh, ñu xaar incha allah euh, fermeture bureau de vote yi ni ñu ko amee yaakaar li tax ñu wàcc ci terrain bi boobaak léegi pour que l'opposition soit forte l'opposition euh, soit renforcée par les citoyens ñu ñëw voter massivement pour que ñu mën a imposer cohabitation à Macky Sall da ngay dégg nag ñu naan wuy cohabitation baaxul ci réew je dis c'est archi faux parce que boo xoolee Amérique chaque fois chambre bu ci nekk bu ñu ko joxee ñii ba ca des dañ koy jox ñeneen lañ ci jublu mooy ne dootoo fi toog yow président di def lu la neex dana am ñeneen ñoo xam ne jóg nañu ñoom it ci seenu bëgg réew mi ci seen patriotisme ñu jàpp ne loo def ñoom danañ ci bàyyi xel parce que nag il faut ñu waxante dëgg député bu dem assemblée président indi fa euh, projet de loi bu dee njariñu askan wi sañu loo koo bañ a voté bu dee lu baax ci askan wi la sañuloo ko bañ a voté kon li ñuy wax ak askan wi naan leen cohabitation de yàq réew mi loolu ñi nga xam ne ci njublang la ñu nekk ñi nga xam ne ci yaama neex la ñu nekk ñiy sàcc alalu réew mi ñiy fooye réew mi ñi nga xam ne démocratie Sénégal dañu ko def manteau di ko sol bu ñuy génn dong ñooñu la jaaxal kon j'ai di et je répète nous autres Sénégalais nous avons une chance inédite d'imposer une cohabitation à Macky Sall mais également Euh, d'écrire une nouvelle page de l'histoire mooy fexe ba ki nga xam ne moom moo di euh, Macky Sall ñu teg ko ci yoon jaarale ko ci assemblée nationale ngir assemblée nationale mën a jouer rôle bi nga xam ne moom la sénégalais yi di xaar ci moom.